kulli dëgg day deete deewul asal li dee metti metti jotul ak murit amaana nga gis waaju tëb di dee te doo gis kutam dal di def bismillahi min asheytaani seetaan ci seen télévision Mafatihul Bichri ñoo ngi leen di nuyu di ci jiital ki ñu ci baaxoo jiital borom Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di siyaare mboolem këri diine yi bàyyiwuñu benn kër ndax fépp foo xam ne mag mu baax a fa nekkoon taal fa taalub lislaam bi da bàyyi ko fi njaboot gi fi nekk di ko xam ba taal bi fayut ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen siyaare bu baax ci pakk bu tedd bii ñu nekk di pakkum njaareem di pakkub cheikhul xaddiim waaye nag ñu taxaw ci buntu armeer yi boppam yi yi nga xam ni moo ko rëddaloon boppam fii ci njaareem wax ci wax ju réy jamu ca waxoon wax ni képp ku nu fi xëy denc aljana ngay yandu bu dee ngoon lañu fi dencit lañ la fi dencit fa ngay fanaan yi loolu itam doon lu yaatoo yaat loo xam ni dañu ci tënk baat boobu rek seen émission gëstu mag ñi nag ñëw fi ngir gëstu kenn ci mag ñi fi tëdd ñu di ko wax sëriñ Modou Awa Ndiaye euh, sëriñ Modou Awa njaay bokk ci mag ñi àndoon ak Seexul Xaddiim ci ànd bu yàgg àndoon ak moom fa Thiène Jolof àndoon ak moom gannaar ba ni sëriñ bi ñëwee njaareem sëriñ Modou Awa sëriñ bi ëndaale ko njaareem mu nekk ci wetam jege woon ko lool ba sunu boroom dogal ci moom fi mu jaar moom sëriñ Modou Awa ba tëdd ci arméeri njaareem yi dinañ ci ñëw kon mbokk ñu ngi nuyu bu baax sëriñ Abdou Khadir Ndiaye mi nga xam ne mooy ab xalifaam di ñaan sunu borom yàggal ko fi te mu wér mel na ne dinañ ko ànd tamit ak sëtam bu baax bi di sëriñ Fallou njaay nga xam ni moo nekk ci barab bi di ko wattu képp ku ñëw moom ko fi fekk ñi di ko wax Cheikh Mouhamadou Fadal Ndiaye Njuuma mbokk yi kon sëriñ Mourtala Guèye la seen émission gëstu mag ñi fas yéene dugg ci biir arméer yi njaareem Euh, def waxtaan wu yaatu ci euh, euh, jëmm jooju nga xam ne dinañ ko ànd ak Serigne Fallou njaay waaye nañ ko ànd ak Serigne mbay Ngiraan moom Serigne Mor Mbaye Cissé jërë ngeen jëf ba ci kanam itam jóg daw ci murit ba dundam ba farjee mu réereñ murit ku fas ni ku am ay murit di murit te fas ni ku ñàkk yi murit du murit xamul la yëgul sax mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñuy siyaare mbokki julli yëpp ak mbokki taalibe yëpp ak dëkkandoo yëpp ak mbokki lislaam yëpp fépp murid nekk rawatina taalibe ñu ngi lay siyaare tey ñaan suñ kàddu fekk la ci jàmm barkeb sëriñ bi te di ko sàkk ci ngeen ñaanal ñu ko Euh, tey nag ñu ngi ñëw ci euh, jëmm ji tedd ju màgg di ku ñuy wax sëriñ Modou Awa njaay nekk fii ci armeeli Njaaréem yi di taalib sëriñ Touba bu sëriñ bi nangu taalibeem te gërëm ko waaye ay mbiram ñu ngi ko tàmbalee ci li ci gën a siiw rek moo sëriñ bi bi nekkee jolof ndax nekk naa sëriñ bi jolof ndax li may wax nii sama bàyyi moo ko nett li moo ne sëriñ am sëtu jaxatee ko nett sëriñ Modou Awa bi nekkee jolof sëriñ tubaa ngëwu pep di mu ñu daan jox waxtu ba ko del si sëriñ Modou Awa da ko daan maye loolu sama bàyyi nee si am sëtu jaxate moo ko nett li mag ma kon muy nit koo xam ne si nit ku jafee waxtaani la ndax nit yàlla mel noonu mu nit ku bari xam-xam te bari wilaaya te nangu koo jëfe boole ci tey taalib sëriñ bi dëgg nag boo xam wécciwu kook dara damay faral di wax ne li ko yàlla li li ci moom day coobaree yàlla waaye li mu sàkkul boppam mooy taalib ak sëriñ Tuubaa waaw wilaaya moom yàllaa ko def ci moom waaye li nga xam ne moo ko jug sàkku ji ko mooy mooy mooy nekk taalib sëriñ Tuubaa ndax ba mu duggee ci loxoy sëñ Tuubaa di mu ci gén mus cee génn ba ni mu tëdd fii sëriñ bi it li mu gën a fonk ci àdduna nga xam ne ñëpp xam ne loo ko mas a jox lu dul loola du ko nangu daan tegal fi suuf te boo ko joxee loolu rek mu nangu ko muy alxuraan ab liggéeyam bépp alxuraan rek alxuraan la ko la ko tegoon mu bokk ci ñaar fukk juróom-ñett yi suñ ci baa njëkk tànn ci ci njaareem waaye Sëñ Tuubaa nañ xam ne fu mas a nekk daari kaamil jàng fa waaye li siiw nag mooy bi ñu njëkkee njaareem waaye Jolof noonu la woon bi ñu dikkee njaareem ñaar fukki juróom-ñett yi Sëñ Tuubaa daana ci la bokk am na ñu ne am na koo njëkk moom muy sëriñ ma sorong waaye gën a siiw ci nettali yi sëriñ Mourou Awa topp moo ëppaguñ ci li mu ko jiite ca mag nga xam ne kon day mel ni am na 1915 euh, ba 1938 day mel ci loxoom la nekk bi nopp bi mu noppee euh, la jox suma juumut sëñ ma jëmb si la mi ngi fi jugee bisub altine ci yoor 1938 ci gàddaay gi 1357 di san sa sin muy nit ku man alxuraan ndax sama waajur nettali ma ne ma nijaay ma ko nit di ku ñuy wax nekk suñ sëñ Muudu moom lu lu wàcc arxuraan ci kawam arxuraan wàcc ñàkk liñ ko wàccewu ci kawam rek waaye man gi moom mënenu woo nit sëñ Tuubaa it fonkoon ko lool ndax téere bii ma tiim nga xam ne mag ñëpp ci nekk muy murid yi magi magi magi dongo yi ñu koy tuddee jaar-jaar yi mag ñi boo ci demee mas am na ci nettali yuñ ci nettali yoo xam dañ ne sëriñ bi mas na ko may ci boppam ne ko dama bëggoon nga toog fi nga toog fii ci man ma la soxlaa gis la nee na sëñ benn bis mu yónni ko mu dikk yëglu sëñ bi ne bisimilah mu demaat dikk sëñ bi yónniwaat ko mu dikkaat yëglu sëñ bi ne ko bisimilah ñetteel ba wala ñeenteel ba mu dem dikk comme moom moo ko moo sëñ bi ci kees gi ci xar baax sëñ bi nga xam ne sëñ Tuubaa kenn du moom bi daa fekk mu jëm néeg bépp nekk ay sëñ Tuubaa bi mën na ko mën na ko muur doon ak ñoo bett boo ko defati waaye nag dara du la ci fekk. dara googu ñàkk ko fekk moo tax wenn wopp la ma saa muy wopp ji mu tëddee fii ci ci gàttal bi mu fi jógee fii nekk tubaa euh, ñëw na tubaa euh, wër armée li Touba yëpp comme ni ko ni yëpp waxee defar xeeram wii suma xeer wii suma jumaay euh, jumaa ji jumaay Touba suma jumaay Touba la ko móole nga moo ko móolal boppam bindal ko boppam jënd càngaayam def ci wër armeel Touba gis fa bàmmeelam mu ñëw fii njaareem wàcc ko sëñ Balla Fall Dieng fekk ko fi mu dem ko sëñ Aliou Gadiaga ñu naan ko Aliou Sala bi wàcc fa ëmb ba dem kër docteur wax leen ne man kër sëñ Balla Fall laa dal ban ko xoolee tuuti mu di wut ab adresse ci moom mu daal noppalu bi ñëwee wax ko sëñ Aliou Gadiaga lam ci dolli rek mooy sama waa ji daaw def lu lënd ana fi bàyyi ñu ne ko bàyyi na fi ëmb ñu xool ko gis ca xeer wi ak càngaay li nga xam ne moo ko bindal boppam loolu rek doy na sëkk ci xar baax yi mu def nag ak lim lim wane ak lim taxawu ak li nga xam ne si moom la taxaw alxuraan ak ñu mu jàngal alxuraan ab lim la boo xam mësuñ su mënee su ko wax ci émission waaye ci gàttal rek ku ñu wax suñu Matar Jóob cump dëkk Daaru Xuddoos Tuubaa Daaru Xuddoos moom mii la ko suñu Tuubaa joxoon bari na lool ñu ci mën a lim waaye xëy na ko bu ñu ko ci waxee rek mu doy sëkk waaye ci gàttal nga dolli wàcc nag Euh, diggante njaareem gi ak Touba gi nga xam ne si si njabootu sëñ bi bëri na ñoo xam si noonu la jaxasoo woon muy si Modou sëñ Fall ak sëñ Massamba nga xam ne annoncé dem sëñ Touba wuy ji dem dem Touba bokk na si ñi njëkk annoncé ci gàttal rek mooy sëñ Massamba ko at mi daal bëggoon nañoo xam lu ciy xew mu ne ko nañ bàyyi noonu mu laajaat ko xaw mu ne ko nañ bàyyi noonu. ñettal ba ca la ko wax ne ko sunu waa ji daal dana ci wuy ji boroomam ci at mii ku ñu wax sëñ Baye Tedd juuf nettali ne ma sëñ Mbàkke Diouf ay baayam euh, ne sëñ Muudaa wa ñetti weer nekk na ko njaaram yoo xam ne ci ne nit ñi dañ koo yéem mu ñu ne ko loolu nit ñi yéeme mu ne malaayka yi nañ baree ci njaareem gii te mënuñu koo gis moo ma jaaxal nekk boobu dem sëñ bi lay lay annoncé nga xam ne kon ku am ku yàlla may ab gis la kes ci gàttal rek euh, ak wilaayaam moom ñëpp ko nangu ndax ku ñu wax si Moussa moom si moom si Abdou Khadir mas damay nettali comme nii ngeen di def di gëstu nee na day gëstu si moo di ko di ko gëstu fu mu dem rek ñu ne ko wàllu la kaamil la këstu am na kas nee na benn bis mu ne naa dem ci si Abdou moom ci lii ne bi nee waxtaan si Abdou Khadir ko suñ Modou mu ne ko suñ Modou laa doon laaj ba xam euh, ak wàllu nu mu demee nee na mu ne ko wàllu yu dafa am kas ku yàlla may kas fu la nee na loolu si Sibdu Xaadir la ko jëlee nga xam ne mbiram moom ni waxtu waxtaanee ni ko nit ñuy waxee rek ni waxtu da ko lëm ba dem waaye nag nit ñaa ngi koy tàmbalee xam par benn benn ndax nit ngi jóge fu ne di fi ñëw bis boo fi ne bis boo fi taxaw rek nit fekk la fi ne biir laa jóge loolu nag mooy mel ne mbirum wàll yi moom seen ginnaaw la ñu gën a man seen kanam muy pàkk bu tedd boo xam ne si daal jëmm ji tedd ku Sëñ Tuubaa gërëm te nangub liggéeyam moo fi nekk ñu koy wax sëñ Modou Awa Ndiaye yaayam tudd Faati Diak baayam tudd sëñ Daaru Matamata ku ñu wax sëñ Modou sëñ sëñ Xaldi Wédega nett nett li na ne sëñ Tuubaa mas naa woote fii ci kër gi ñoo nee na ñu ëpp ci seex si ñu ngi fi toog ñu bari ñu ngi fi neen sëñ Tuubaa xool leen loolu yàgg mu ngi sëñ Modou Awa ne leen yéen ñi ñëpp ne kii ngeen bëgg mel mu tëdd ci te loola téere bi ma tim andi na ko andi na ci ci it woo na waajur mu jigéen mu ñëw mu ne ko yaa jur Moodu Xawa mu ne ko waaw mu ne ko yaa ko jur ba mu ñett mu ne waaw mu ne ko mu ne ko yëgal na kenn gënul loolu nag ay suñ tubaab ci nit mooy eh, kooko moom li olof naan ak jàll nag mooy ku jàll waaye mbiram daal moom eh, doy na waar suñ tubaab moom léppam arxuraan la ko féetale woon mosu ko lenn lu arxuraan arxuraan rek ci la nekkoon jàngale ak bind ak ak di loolu moom mooy mooy mooy li ci ëpp solo waaw nga xam ne loolu daal moom moo moo moo mooy mooy liggéeyam moom sa nekk fenn fu daari kaamil ji alxuraan rek foo ko fekk mi ngi koy jàng ndax sama bàyyi nettali ne ni ma sëñ Modou Diak moom moo ko nettali ne ko sëñ Modou sëñ Modou bu ma saa noppee wax farata rek mi ngi ci alxuraan ji heure bu noppee wax farata wala nga laaj ko mu tontu farata rek mi ngi tari yor jukki loolu moom ñëpp séddale nañ ko. waaw kon li li ci li ci li ci dolli ko nag moom li nga xam ne si moo ci ëpp solo la nga xam ne moom dañ koy bàyyee suñu suñu kilifa suñu xonqarit suñu waajur sëñ Mbay Ngiraan moom nga xam ne moom euh, bu jugee fii daal danañ jàll ci sëñ Mbay Ngiraan daan jàll ci sëñ Mbay moom mag ñi ñor nañ ko te yàgg na cee gëstu te xam na ci wax leneen lu gën a leer li ma wax ndax man xëy na saa yoo naa desee leer dëgg dëgg dëgg dëgg waaye nag buñ ci àggee ci moom rek niñ koy bëggee danañ ko ñu amee kon ñu ñu taxawlu foofu xeer wi biir it mën ngeen koo xool mi mi ci biir mën ngeen mën ngeen gis moo ko moo ko bindal boppam moo moo moo moo moo ko fii sëñ Mourao euh, yi nga xam ne dañ ko yàlla dogal na ay mbiram mi ngi yëkkatiku nga xam ne nit ngi jóge feneen di ko ko siyaar si ci gox goxaan yi fasanti ko doy na sëkk rek nga xam ne moom mm, siiw na lool képp koo siyaare ko ne saa borom bind la yolub yàlla juróom benn fukki at dana la yàlla gu nangu juróom benn fukki at tooñ goo fendi saa borom jéggal ko te loolu si asan wax ci gémmiñu boppam loolu nag doy na sëkk di siyaare bu baax euh, sëñ Saliou salaam ak njaboot gépp sëñ Xaadim ak sëñ Daawuda ak sëñ Moussa ak sëñ Adama liggéey bi nag ni mu mel nii lépp mi ngi ci ci loxo yi sëñ Adama li ci ëpp moo ko moo moo moo moo moom la moo defar liggéey bi moo def lépp waaw te xaar ci kenn nii nag loolu nag positif bu kawee kawee kawe la waaye nag moom mag ñaa ko ñor rek ndax moom li muy def lépp defu ko ci ngir dara ngir liggéeyal waajuram ak liggéeyal sëñ Tuubaa rek ko ci ñor ndax xëy na ban xamante yàggut waaye ànd bi lépp rafet lépp mooma moo ko xalaat yi te ne woon lu lu lu nu mu rëyee moo gën kon yàlla li ko xëy ne mu barab bi toll nii waaye su lam sumboon ëpp na lii kon nag ñu ngi koy siyaara baax a baax a baax a baax a baax te di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér te xam ne suñu xol set na ci moom baax a baax ñun nag dañoo desee mën a wax moo tax waaye daal loolu moom ñu ngi ko ci ñu ngi ko ñoo ko ci tegewul baax na jërëjëf aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala al aadi al amin sayidina wa mawlaana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbi sabiril waadi wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandook yi bokki Sénégal yëpp noo ngi nuyu ñëpp te leen siyaara di leen balu aq di leen ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal di leen siyaare bu baax ci weer yi nga xam ne weer yu génn la ak weer yi nu dugg la ko tàmbalee ci weeru màggal gi ak weeru gàmmo gi ak rabihu saani mi nga xam ne dugg nañ ci muy rakk ji gàmmo lépp bokk ci weeri gàmmo yi nu di leen ci siyaare bu baax di ñaan sunu boroom mu dal taw tawféex ak tey siir tey nag nu fas yéenaa yëkkati ay kàddu ci jëmm joo xam ne jëmm ju naqaree waxtaane la waaye jëmm ju neex a waxtaane la itam li ko waral mooy la Abdou Wadoud waxoon rek kalaamu law li yaay lestu af xumu li ànd nii ana ana waxum xumoo awliyaa ullaahi nga xëy laa xawfun alihim wala am yaxsanoona noona sun borom wax ci ñoom ci alxuraan du ñu jàq du ñu ragal waliyu kon nag nituk ordinaire ku mel ni man rek xam ko day jafe nit ndax nit daa lëndëm nit daa lëndëm sàkkaa ki ngay wax bëgg a wax ci moom ki nga bëgg wax ci moom muy awliyaa ullaahi eh, di xaalim di xaafis di xaabit di saadix di wàlli yu kaamil kooku mooy kan mooy sëñ Mudu Awa Njaay sëñ Mudu Awa Njaay moom sëriñ Tubaa xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jaami waaye sëñ Mudu Awa Njaay moom sëñ Mudu Maxtaar Njaay baayam sëñ Mudu Maxtaar Njaay la tudd maamam di sëñ Modou Khoudia Ndiaye waaye maamaatam di sëñ Mor Maram Ndiaye day mel ni kon foofa day doyee am sëkk ndax suñ ko tàmbalee ci Aboo Bakrin euh, ba ci fëri Ndiaye Samsu Xarija sëñ Maxtaar Ndiaye Bara Anta Maroon daal di ñëw ci Samsu Maram Jaw ak Mor Maram Jaw ñoom ñaar moom ñoo bokk ndey ak baay Samsu Maram Jaw mu jur bàcc awa mu jur njaga xëri jaxate mu jur sëriñ Banji Xuja Balla mu mag moom nga xam ne ñi ko réere ci jamono bëri wut ku doy waar la woon waaye naka jekk nag doon dañuy nit ñu baax Mor Maram Jaw mii rakki Samsu Maram mu jur Muudu Xuja mu jur sëñ Muudu Maxtaar Njaay mu jur sëñ Moodu Awa Njaay mii ñuy bëgg a waxtaane nga xam ne soxna Faati Jaag mooy waajuram wu tedd wa kooku ci leen bëgg a waxtaan waaye muy ko naqaree waxtaane nag ndax day wàlliyu kaamil ni ma ko waxee bi mu feeñee jamono ba mat a déeyale ak yàlla boroomam mooy mat a àddal alquran mbaayam di sëñ Modou Maxtaar moo ko dalal alquran jàngal ko alquran ba mokkal mokkal gu rafet wattu alquran wattu goo xam ne genn wattu mënu koo féete kaw ko waaye mu tàmbalil ko njàngam xam-xam mu nekk ci téere xam-xam yi di jàng ba dajal jàng xam-xam ba dajal daal di doon nag li ma waxoon haafis di alim haafis mooy ko wattu alquran xaafis nga xaalim nooy ku am xam-xam mu boole ñaar yooyu di xaafis di alim waaye di ko jëfe nag ndax xam-xam li muy jariñ mooy jëfe rek alhimul kulluhu baabun min ta'abbudi xam-xam lu mu bari bari buntab jaamu yàlla rek la waaw lu mu bari bari buntab jaamu yàlla la alhilmu kulluhu baabun min ta'abbudi wa ta'abbudu kulluhu baabun min alwarahi jaamu yàlla lépp buntab sàmm la wal warahu kulluhu baabun min asuhdi sàmm lépp buntab dëddu adduna la wa suhdu kulluhu baabun min tawakkuli dëddu adduna lépp buntab wakiiru la aflalu tawakkuli tawakkuli fii waajibil aq waajibul xalqi waajibu nafsi mu nekk foofu nag ba dajal xam-xam man alquran xelam mépp nag nekk ci seex mat Bamba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jàmm ñi mu diisoog baayam ngir fekki Serigne Touba jibal ko boppam baayam ne ko ah moom de xanaa li nga yor doy na sëkk ndax yow day xaafis nga alim la te am nga leneen lu suñ borom def ci yow mooy wilaaya gi muy wilaaya gi di wàlliyu gi kon xanaa li nga yor war naa mën a doy mu ne ko naa ko seeti rek bàyyim jël ab leetar jox ko ne ko boo demee nga jox ko sëñ Touba leetar ba nag kayitu kese la xanaa lam ca wax da koo wax def ca ca kayit wa rek mu dem jox ko sëñ ba mu ñëwee mu jox ko sëñ Touba sëñ xool kayit wa kon mel na ne jàng na lam ca def ba noppi wëlbati kayit wa moom it la mu koy tontu bàyyam sëñ Modou Waxtaar mu def ko ca gannaaw wax ko sotti ko ca gannaaw ne ko boo demee kii la joxoon kayit bi jox ko ko ba mu demee mu jox ko baayam mu ne ko kon waa ngoogu mu daal di jaayanteeg Serigne Touba nag Xaadimu Rasuul du nopp lu guddi ak bëccëg di liggéeyal Serigne bi ci xeeti liggéeyin yëpp nag waaye nag rawatina alquran ak xasiday Serigne Touba. Serigne Touba féetale ko ci muy liggéeyal Serigne Touba ci alquran ak xasida Serigne Touba di ko jàngaloo ay kaamil di ko ko xatmuloo di ko jàngaloo xasida di ko ko bindloo di ko ko jàngaloo itam mësta tàggoog sëriñ bi benn yoon fu sëñ mu nekk mu nekk fa ak moom la ko tàmbalee gànnaar ba jolof ca jolof ba njaarim gi sëñ Mudu Awa tàggoowul ak sëriñ Tuubaa benn yoon am na be sëñ Tuubaa di ko jàngaloo ay ay kaamil limub kaamil yu bari mu di ko jàng ba mu yàgg sëñ Tuubaa woo ko ne ko Mudu Awa mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax àggale nga mu ne ko àggale naa koy mbàkke sëñ Tuubaa woxaat ko ne ko Modou Awa ndax kaamil yi àgg na mu ne ko àgg na waxaat ko ne ko Modou Awa kaamil yi àgg na mu ne ko àgg na mbàkke maa ngi ko àggalee ci alluy ma foos alluy ma foos falaa àggalee kaamil yi nga ma doon jàngaloo foofa nag yaakaar naa ne ña fa mën a àgg euh, xam alluy ma foos man faa jàng alxuraan bëriwut sëñ Modou Awa nag di waliyu kaamil waaye di saadix saadix mooy ku gëm sëñ Tuubaa mi ngi jóge ci turu Abubakrin Siddiq dëggal gëm dëggaloon yonante bi ci la turu Saadix jóge moo tax ku dëggal ñu ne kii murid Saadix la muy Saadix nag waaye di alim di haafis di abid abid mooy jaamukatam yàlla du nelaw guddi du nelaw bëccëg ngir jaamu yàlla rek su nekkul di liggéeyal Serigne Touba mi ngi jaamu yàlla ci guddi ak ci bëccëg yi mësta noppalu benn yoon doon jàmbaar joo xam ne ju la di wali kaamil nag woo xam ne lépp lu waay eh, jaaxle wala mu mu mu jaaxal la soo ñëwee ci sëñ Modou Awa ma faj ko am na koo xam ne gëlee moom daa ma soon a mu di ko wër wër na ko lu mat ñetti weer fu ne mu dem fa mënta fexe ba xam gëléem bi fu mu ne mu agsi ci penc ma nag fekk mag ñi toog mu toog toog nu ko sonn sëñ Modou Awa geesu ko ne ko njool daa mel ne dangaa sonn de mu ne ko sonn naa lool kay mu ne ko loo réer le déggal te waxagu ko nekkoon dara ma réer waaye da ko loo réer la mu ne ko sama gëlee ma réer pour naa ko yetti weer xaw ma ci dara mu ne ko tooyalal buntu mbuus ñu dimbale la ca mu lambalam desoon ci bi yóbbal daal di koy jox sëñ Modou Awa mu ne ko randu mu randu si sëñ Modou Awa ni nii loxoom bi mu ni nii loxoom randal na mboolem lu fi nekkoon bi mu joxañee baaraamam ñoddi na fa gëléem nga nekk ba waa ji bëtam man cee tege mu seen gëléem nga ca séngi njaamur ya muy lekk ca séng ya mu ne eh sama gëléem gaa nga ne kaa njool sori na fi nag ñii dañ ne waalo ñii ne ñii ne ñii ne ñii ne njàmbur ma nga fa di lekk ca séng ya mu ne kaa ah, njool sori na fi nag tool kam ne ko woon ca nekk laa fàtte sori na fi kon kooku lii nga yor xam nga am na ci loo xam ne bu leen neexee ngeen ñoddi ko mu jage la bu la neexee nga def ko mu sori la loolu nag muy longuri baatin daa yoroon longuri baatin dara du ko lënt kooku mooy sëñ Mor Awa Ndiaye doon wàlli yu kaamil bis muy tëdd fii da koo bindoon bis muy génn addina la ñu aw xeeram bind ca weer wi muy faatu ak atmi ak bis bi lépp mu bind ko waaw ñii dañ ne sampoon na ko armeli Touba ba mu yàgg mu sempi ko ñëw samp ko ci armeli Njaaréem ñii ne daa wax ne wër na armeli Njaaréem yooyu tuuba wër na ko gisu ca ab bàmmeelam mu andi ko Njaaréem bi ko mag ñi laajee nag tableau bi nga xam ne yow bind nga bis bi ngay génn àddina ak weer weeg lépp sañ sampo Touba ba yàgg nga jëlee ko fa indi ko samp ko armée di mu ne Touba lépp a nga fa xéewal ga du jeex waaye fii nag mooy ndën li ndën ndën nag mooy fi ñuy togge di fi yàkke mën nañoo tibb nag yóbbu feneen loolu moo tax mu ñëw fii kooku mooy sëñ Modou Awa Ndiaye di jàmbaar di murid saadix waaye di waliyu kaamil euh, euh, di xaafis di abid di abid kooku nag day jëmm joo xam ne lépp euh, léppam nag da koo jaay jënd ko ngërëmal sëñ Touba rek lépp da koo jaay jënd ko sëriñ Touba lépp da koo jaay jënd ko ngërëmal sëñ Touba loolu lépp teewut bu sëñ Touba masaa génn ñu gis sëñ Touba dañuy tëdd ñoom duñ jóg taxaw de bokkut ak murit léegi bu sëñ Touba masaa génn ñëpp dañuy tëdd te ay wàllu lañ démb rek ca arme ca ca barabam bee ñama àndaloon ñuy siyaare mu yóbbu leen ca barabam ba ne leen ku ko siyaare ajjuma da nga texe saw yaram day araamal na sawara barabu sëñ mu dooba njaay ku fa taxaw bi bisu àjjuma siyaare ko sa yaram araamal na sawara ëllëg àjjana rek ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay dekkee waaw ba mel lu neex nga fay nekke ba ba suñ di tukkal adduna ba moom muy taxawal jaam ñi ba mu muy dugal jaam ñi àjjana lépp yow fa nga nekk àjjana lay doon ci yow kooku nag mooy sëñ Modou Awa Ndiaye di jàmbaar yoo xam ne kenn melut ne moom ci àddina moo tax damay faral di wax naa leen Euh, dogal ko de sëñ Tuubaa moom bokk na ci ñi nga xaye du am ab sëriñ bu sëñ Tuubaa ñëwutoon adduna sëñ mu dama jaay du am sëriñ ku ko attan amut ci addina waaw kon du ñëw sax day far toog bañ ñëw waaw jàmbaar a ngi noonu joo xam ne yàlla nu yàlla taas ci barkeem te bàyyi fi sëñ Ibra Njaay mi nga xam ne moo di taawam tey di xalifaam di way juru sëñ Fallou mii di way juru sëñ Fallou Njaay mii kon moom moom mii may wax mooy maami sëñ Fallou Njaay mii bàyyi ma nga mag la naam waaye yàlla na koy fa yàlla bàyyi te bàyyi fi sëñ Fallou mii kuñ gërëm la sëñ Fallou mii li ma ko wax léegi jaral na ma lu ne moom ndax dafa dafa tege ci yoon wa te wàccu ko benn yoon jàmbaar la góorgóorlu la mi ngi toppatoo barabu maamam bi xam na ne kenn gënu ko maam te it sëñ Tuubaa waxoon na ko euh, soxna Faati Jaag soxna Faati Jaag mi nga xam ne mooy way juru euh, sëñ Modou Awa Ndiaye sëñ Tuubaa noon na ko soxna Faati mu ne ko Mbàkke mu ne ko muudu awa mu ne ko waaw mu ne ko kenn gënu la doom kenn gënu la doom kenn gënu la doom kooku nag mooy suñ jàmbaar jooju kon xam naa dañuy taxawlu foofu rek ba yeneen i jamono nag eh, yu gën a yaatu nu delluwaat ci ay waxtaan yu yu yu gën a yaatu noo ngi siyaari ñëpp nag di balu ak ñëpp di baal ak ñëpp di ñaan suñu borom boole nu jéggal eh, te sëñ falu yàlla dolli sëg wér yokk saw fan musal ci am ndok saayir ak baatin ak ku la ko yéene ak kooku yéene yow nag yéene nga ko ñëpp di siyaare sama sama sama sama doom ji nga xam ne moom sama dooma baayam kenn la woon ci man wax digg yàlla waaw baayam kenn la woon ci man baax lool baax lool kay yàlla na yàlla dolli ay leeram mm, fa mu tëdd ci saay rek ci baatin seen daayira bi ci marché bi mu jiite ko lépp waxtaan wuñ fay def ci koor gi saa su ne man la koy féeteel di ma ko jagleel yal yàlla doole ay leeram fa mu tëdd ci barsàq noo ngi siyaar yi ñëpp di balu ak ñëpp di balu ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen rundamagay dali day lal da بشارة لسف مدمنا مد لكل موسن وموسنا على بشارات ترى مستحسنا وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى